jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey nag ñu ngi toog xale boo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy général bu Malika mu nekk xale boo xamante ne vraiment bu dugg see ci làmb nga gis sañ-sañam nga gis mën bëreem nga gis bëgg bis bi nga xamante ne dañ koy gis ci moom saa su tey nag mu wootee ndogu bi mu wootee ndogu def na ko ni ko ay nawle mbërëm defee ñu koy ñaanal rek vraiment ci bëgg yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax benn jaamu yàlla bu woor suba ba ngoon jot nga yëkkati benn tàndarma jox ko mu dog kooram loolu xaw ma ñaata la la suñu borom mën a fay ci yiw dañ koy jaajëfal bu baax bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi di ko siyaar bu baax a baax a baax ci weeru sell bi mbër maa ngi leen nuyu baax di la siyaar. Baye Jili maa ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn barak waa Buun. waa Kër Massar waa Albañaax waa Montagne waa Mbowes di nuyu tamit presse bi fi teew yëpp di nuyu suma xarit yi may àndal di nuyu suma mafia bi nga fi fekk fii nii yëpp di bëggee ñëpp di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq quoi. ndogu bi mooy ñaata yoon nga koy def. mënu ma ma ko fàttali de mais mais yàgg bëri na yàgg na. ndax barki démb sama am sama benn xarit bu nekk bilim réew woo ma ma ne ko maa ngi nii kafe ga mu ne ma booy ndax yéen a ngi teg kafe ga ba léegi ma ne ko ñu ngi koy teg mu ne ma billaahi kontaan naa li may sama reef mooy ñu dem ba nekk ay mag yor suñuy njaboot lii bañ a denc saa su ne chaque année koor bu ñëwee ñu koy def ndax bañ koy tàmbali ci benn cin bu ndaw lañ ko doon def pour wax la ni doonu mbër wala doon benn champion taxul ñu koy def mm. lii dañ ko yàgg a def maag sama gaay yi kii day indi téeméer kii ni mille francs ñuy teg café ndax benn yoon lañ ko mës a def ci télé di joxe ay café mm. gis bu ñuy jox nit ñi café ni ñu ko yittewoo ak nit ñi ni ñuy amee yéene pour pour pour dog yooyu noonu mm. ñu xam ne lii du ay caaxaan même bu lu mu metti metti metti ku ci nekk di nga génnee sa dërëm sa ñaar dërëm ñu cotiser ñëw teg te buñ ko tegee yàlla suturaal nañu du tey rek li ngeen fi ñëw de mais billaahi wallaahi chaque jour dinañ jënd mburu tàndarma café ak ay ndox affaire yooyu di ko joxe mm. man chaque jour falaay dogee ba pare soogu ñëw sama kër ndogu mm. waaw ci say génération bi nga nekkee mm-hmm. xale loolu daan na am wala déet ndax lii dafa mel ni léegi la gën a bari waaw daan na am mais bariwul woon comme ni mu mel léegi mm. tey jii su ma duggoon sama Facebook mën naa laa génneel suñuy photo yoo xamante ne lu yàgg la te fee ñu ko daan defee fa lañ ko doon defee des fois sax nit ñëw nañu est du ko indi fii wala est-ce que du ngeen ko yóbbu fee fi ñu ko daan defee fa lañ koy defee te ñii fi toog nii duñ ma duñ ma bàyyi ma fen mm-hmm. mais wallaahi bañ koy def yàgg na te ba léegi yàlla ñuy suturaal ñu koy def daal vraiment. Mm-hmm. yaa ngi waaw bu baax sax. ñaar fan nga yaakaar naa am na ñaar fukki fan ak benn de. su ma mm-hmm. juumul waaw. xam nañ ñaar. Kara loolu la ñu am bee bee <laughs> ah, actuellement gisuma asaka koor gi du génn ci moom. kan Kara doole wala man génn na bu baax. avant koor yëngoo ko. avant koor ba ma gisoon kon mooy lool instant yi asaka bi daa génn bu baax hmm. ah ay jullit lañ foofu asaka bi génn hmm. ñu ngi woor de bu baax sax hmm. yee mais dañuy njëkkee ci compétition yi nga xamante ne xam nañ la muy drapeau chef de l'état sa moroomu mbër yëpp dugg nañu regroupement gisuñu général bu Malika mu dugg regroupement lan la waa ren moom ñoo préféré ne bëréewuñu chef de l'état li tax nag mooy gëmatuma ni war nañoo am luñ prouvé chef de l'état ndax yàlla suturaal nañu année yi ñu fay dem yëpp suñu catégorie bi nga xam ne ci la ñuy représenté yàlla chaque jour mu ngi ñu ciy suturaal ñun ñooy génn meilleur comprendre catégorie cent vingt saa bu ñu fa demee dañuy génn te da doon métti tamit situation yi da doon métti ñuy ndax dañu daan dem chaque année bu ñu demee ba chef de l'état di waaye ñëw gars yi ne ñu cent kilos la ñuy yem te dañ daan yor poids bu bari. Mhm. wàññiloo ñu ñuy daj ay coono après buñ commencé waatee compétition yi daf ñuy handicapé lu bëri. ñu dem nag ba reen gars yi wax ma ne leen bu fekkee dañuy wàññi pois ñun préféré wu ñu bëre. Mhm. en même temps sax jàpp nañ ni moment bi nii suñu rêve nekkatul ci ay bëre chef de l'état bi am na feneen fu teg suñu bët dañoo viser pour concentrer wu suñu ak li nga xam ne moo nekk suñu kanam. Mhm. après dem nañ ba dernier moment sax gaa yi ne def nañ réunion léegi dindi nañ catégorie cent vingt kilos bi pois boo yor baax na. Mhm. man leen nag liñ tàmbale mënoon nañ ko njëkkee ndax ñun daan nañ ci daj coono yu métti. boo xoolee suñu génération c'est ra nga gis ci. ku ci teg la deux fois di fa bëri chef de l'état wala ku ko fi jël ñaari yoon bëriwul. man yàlla suturaal na ma yi ma ci participer yëpp sama catégorie maa ko jël kon gëw ma ne am naa lu ma ci war a prouver yi li am solo mooy waxoon nañ na samay morom yoo xamante ne doon nañ a ci loolu ma mm-hmm. a kanam daal. Mm-hmm. daa mel ni wàññi poids bi dafa am lu la ci metti wala loo ci. taj ba tax bu ñu waxatee général wàññi poids rek du ci sawar lan la. waaw du du ma ci sawar. lan moo tax waaw ci lu ma jóge la. ci lu ma jógee tax na moment bi xoolatuma di avancé ba pare di delluwaat ginnaaw. ci lan nga jógee. dafa am combat bu bu rëy bu ma jógee boo xamante ne mën naa ne àddunaa ko doon bàyyi xel. Hmm. tey jii bu doon seen cent cent sénégalais yëpp mën naa ni quatre vingt quinze pour cent yëpp ma joxoon favori mm. te li tax ñu jox ma favori te du di nelaw tax ñu jox ma favori dañoo xam samay qualité seetaan ma mm. xam sama capacité ak sama sañ-sañ ba tax ñu jox ma favori mm. mais moment bi combat bi di taxaw dafa tombé woon ak ñu dugg regroupement trois jours ñu génnaat di waaj a dugg regroupement ñuy négocier combat bi ma ne leen mënuma boole ñaari programme fekk moment boobu staff bi am na ci waa CNG yu ñu waxtaanal ñu ne man convoqué nañ ma ba jot naa faa dem def fa trois jours ñu ñibbi si waat dem màggali ñëwaat. Hmm. man leen foo ma préparé kon suma combat bi nga xamante ne moo nekk suma kanam ñu ne ma non regroupement baax na di nga fa mën a amaale ay. entraînement yi normal ak yooyu noonu man leen mais li problème bi mooy da ngay dem foofu ñu lay wàññiloo poids te man instant yi wàññi ma ndax dama nekk ñu ne ma boo demul mun nañ la cee sanctionné ndax affaire de affaire nationale la waruñu laa amul amoo droit ñu convoqué la nga war a bañ a dem man leen pour man saa su ne ki téye titre bi buñ tollee ci war a yóbbu nit CBAO ki téye titre bi nga xamante ne mooy chef de l'état Sénégal fii ki nga xamante ne moo téye titre bi buñ tollee ci moment boobu noonu ñooñu lañ war a njëkk woo wala ñooñu lañu war a njëkk a convoqué mais tey jii boo xoolee li yàq suma combat wala boog li li ma wàññi lu bëri ci regroupement boobu la jógee te en même temps tamit regroupement bi ma demoon amul benn sens zéro la ndax dem naa fa dunduloo nañ ma ay coono ba pare boolewu ñu ma ci compétition bi. ñàkk nga fële ñàkk. ñàkk fële ñàkk fii te amaana ñoom bu ñu ma comprendre woon sax ci benn côté may ma lenn ndax nit ku ci nekk nit nga ndax toogoon naa ak ñoom ne leen man dama nekk ci combat di préparer dee leen ma may may ñibbi di dem sama kër mun di préparer di saafonteeg samay mbokk ñu ne ma non affaire de regroupement la esprit groupe la bugguñu. nga nekk fekk say morom ñuy bàyyi ki di bàyyi mais ñoom mënoon nañ ma comprendre si benn côté xam ne damay préparer combat ndax grand combat du ay fo hmm. mais boo xoolee dañ maa tënk ba sama lamb des trois jours ci lañ may soog a bàyyi. Mhm. li ma gën a handicapé loolu ci la bokk. Mhm. yee national bu Sénégal bi ñu ngi waaj a dem Maroc. Mhm. bu ñu jugee ci drapeau chef de l' état bi. ci sélection boobu nee na ñu ñu ci bari ci chef de l' état bi lañ leen di jëlee. est ce que boo demul dinañ la mën a convoqué pour nga dem représenter réew mi. waaw mais ça dépend de man xaw ma ndax dinañ ma mën a convoqué lu duñ ma mën a convoqué waaye daal xam naa ni. moment bi ak ci lu ma munti dugg balaa ma ciy dugg dina leer te tamit comme CBAO la ñu wax. Mm-hmm. mbër yi dañuy génn di dem fu ne di représenter Sénégal mais leen rek ma jaaxal làmb ji mbër yi amul trophée yu ñu jëlul mais état mosul recevoir mbër yi. kon est ce que amati na chance mbëri di dem di téye drapeau Sénégal di génn di bëre te fii artistes yi sax bu ñu génnee dem représenter Sénégal bu ñu ñëwee état bi recevoir leen. Mm-hmm. ban mbër ñoo fi mës a jël CBAO te CBAO tournoi CBAO lu ci ëpp Sénégal lañ koy organiser. Mm-hmm. mais li gën rafet mooy ñun ñi nga xam ne sax demuñu suñu frère yi nga xam ne dem nañ fa jël fa ay médaille d'or musuñu leen recevoir kon te nit ki tamit yaa ngi rêvé ci li nga nekk di ci liggéey boo boo ci amee ndam bëgg nga sa kilifa recevoir la delloo la njugal nga d'état ak ak président de la république du benn Matar Ba ñu dul ñoon da leen di da leen di convoqué di gisee ak ñoom. Hmm. comprendre nga yow mii sax boo soxloon tey Matar Ba suba nga dem gis ko. mais waxuñu loolu Matar Ba ministre la ministre des sports moo jiite wàllu sport yëpp c'est normal loolu mënul ñàkk. Hmm. mais président de la république lañ wax ndax ñun ay citoyens sénégalais lañ. Hmm. te fii Sénégal ban sport moo fi gën a dox làmb. amul de amul mais tamit boo xoolee ba ci biir. làmb ji di fi nekk léegi kenn mënu koo wax mais daal bu fekkee ay sénégalais lañ gëm suñu sport nañu joxaat suñu wàccuwaay ndax boo xoolee tournoi CBAO yi dafa metti de moo chef de l'état yi des fois mbër dafay dem rey boppam bay bëgg a dee mais yàlla xam doy na de. Hmm. te loolu lu ñu war a bàyyiwaat xel la. yaa soqeeku ci làmb ji mais nga soqeekoo defet nga am. Hmm. defet bi yaakaar naa sa ñu topp sa ginnaaw ñëpp amuñu ndam. lan la lan ngeen fas yéene defaat ban méthode ngeen indi. waaw ñu ngi si suñu yoon di liggéey. Hmm. ndax boo xoolee wax ji bëri woon na coow li bëri woon na ndax bari na ñuy ànd sax léegi entraînement amaana suñu mafia bi moo tax mais loolu dañuy sant yàlla ndax dañuy faral di wax naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam. ñun fii kenn mayu fi sa bopp ku ci nekk saa boo xëy da ngay sabablu mais ci sa biir sabablu boobu ci la sa façon wërsëg bu nekk wala teraanga bu ne mën nañ ci la lay fekk. ñun tëdduñu di nelaw chaque jour dañuy liggéey yàlla suñu borom diñ suturaal li fi jot a paase nag xëy na day lu mënta ñàkk. Hmm. te du ma ne ñëpp am na fa am ndam pour mu ngi nii ñun lay àndal am na ndam. Bulldozer ci ndam lu rëy la jógee. mais ba muy génn stade man maa ngi zibile xam naa ne daan na yàlla xam na ne aw ma pression aw ma aw ma ci beneen kii ndax xam naa ne moo am ndam yow mi sax ñëwoon foofu doon rapporté bi eh xam nga ni Bulldozer am ndam bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax Bukar mii mu ngi woon ca plateau ba ah. taxaw na ne bañ indiwaate ralentir yi taxaw ne ne Bulldozer moo daan devant ah. tout le public ñëpp di ko dégg kon ñoom ñoo am ndam yee dañ koy sante yàlla rek ndam loolu xeex ngeen ko nu ne pour am ko daa mel ni Malika soxla woon nañ ko. waaw soxla woon nañ ko te ndam tamit du lu ñuy caaxaane xanaa xamoo man sax sama lamb bi nii arbitre yi dañoo neex rek mais man dama doon topp ji action. lu tax dernière action bi am man gisuma man xaw ma carte appui lañ ma wax laa daano xaw ma fes laa daanoo. nee nañ fes nga teg de. waaw fes laa teg nañ xool sama adversaire moom lan la teg. Hmm. waaw mais nag xëy na xama rek dafa am yoo xam ne man aw ma temps bi. mais hmm, bi nga bindee recours luñ la ba léegi aw ma sama info sama sama jotaguma sama kii mais xam naa ne xaw ma daal la lañ ma expliqué mais damaa toog gaay na ma bu ci wax ndax ñëw nañ fii sax yow nga bëgg a def interview. Hmm. gaay na ma bu ci wax kon nag. affaire de làmb la. mais amul problème dañ koy gérer. waaw ñu ngi xoolaat li ci suñu kanam bu baax. promoteurs yi ñu ngi lay contacter actuellement ci làmb. waaw ñu ngi ñuy contacter bu baax a baax. bëri na de pour le moment adversaire yi ñu may proposé bëri na mais xam nga dafa am ci luñ jóge moment bi staff bi ku ci nekk doo nangoo. jël ah, li nga jógee yóbbu na sa fit bi. lu ñu ci ñu jógee. li ma jógee maanaam day doon loo xamante ne mën naa ne sama defaru làmb ci lay jaaree wala sama yàqute làmb ci lay jaaree. Hmm. ndax toloon naa foo xam ne pour man sama yoonu làmb du lii moo may téye ndax li ma jaar moo gën a metti ci li ma jógee. Hmm. mais tey jii bët la koy fatt du ko gis. ba tax na nag moment bii li nekkaat suñu kanam bëggatuñu du ñu amaat leneen lu ñuy fatt ba tax muy yàq suñu yoon. Hmm. dañuy xool li nga xamante ne moo tegu ñëpp waxtaan ci ba juboo ndax làmb ji dañ ñoo cee nax yow xam nga ni sax dañu cee nax lamb ji ni mu ñëwaatee dafa dafa yomb de toro lamb ji aj nañ ko deux fois yoo xamante ne dafa metti te suñuy propre moyen lañ doon demee ñu jugewaat ci loolu temps biñ ko jàppee arrangé wuñu ñu nekk regroupement ñu waroon ñoo may temps ñu préparé suñu combat may ñu temps boobu kon léegi ñun lan lañuy def tey xale lañ ay bañkat lañ tey mënuñoo jëkkëri sama loxo ne ma defal lii may siisu di bañ ndax maa maa am naa kersa di bañ ñu jàpp ne damaa ragal wala damay sóoraale hmm. ndax gëwma loolu mais li am solo mooy lu ci nekk yoon la làmb dafa yoon te tey jii nii saaboo boo wàccee sa yoon rek da nga koy gis. yan adversaire nga jàpp ni ay adversaire potentiel général Malika lañ. premièrement Malick Niang. na bëre na. moom nañ day ñëw saraxu pour mu ñëw. ngir yàlla moom dama koy ñaan mu ñëw ñu bëre. nee na bàyyi naa. barki Seydina Mohamed buñ ma fay. billaahi ma wane ci sama bopp rek mais buñ ma sax fay bu leen neexee. billaahi wallaahi wër na rasulilahi. Ah, Malick Niang suñu grand frère la te rafetul. rafetul yow ngay bàyyi ci làmb noonu noonu. am mhm. benn defet bëgg a bàyyi làmb loolu waa làmb ñëpp a ci war a wax ndax mbër am na fi problème ñëpp génn ñaanal ko mbër tawat na fi ñëpp génn ñaanal ko mais kii xale bu ndaw la làmb di avenir am teranga bu mu am wala nit ñi luñ ci luñ ko xam ci la à cause de làmb mhm. kon tey bu demee ba toll foofu noonu ne day bàyyi làmb ndax ñàkk combat loolu Sénégal sax waruñu koo seetaan ah. man bokk naa ci ñi ko njëkkati loxo njëkk njëkk a loxo pour ñaan ko sens bu ko mënul tamit amul problème mais dama koy ñaan pour mu sauver moment bi fi ñu toll mu bañ a bàyyi làmb Mm. yee waaw bu ko bu la jëlee Malick bu la jëlee mu daan la say adversaire ay moroomam di ko dawaat du bàyyiwaat boo ko daan benn moromam du ko dawaat dafa war a ñëw retifié wu gis nga Sa Thiès ba muy ba mu jugee ci ci Boy Niang dafa dem jëli Moussa pour retifié wu hmm. bëri mbër yoo xam mbër yu mag gis nga mama bi nga xamante ne Ama Baldé day bëre guy gi mu koy daan dafa daw jëlewaat ama neex pour retifié wu hmm. fii amul mbër bu fi jaarul ci loolu noonu mais saa boo amee defet rek da ngay jugaat vite fait pour amaat adversaire pour retifié wu mais moom it dañu war a wax ak moom ndax li muy ko jox mu ne non xoolal leen ma keneen Malick Niang li muy yow weex na nañ ñu dugal ci kaas. barki Seydina Mohamed alxuraanul karim laay waat nañ ñu dugal ci kaas loolu sax laa bëgg man. billaahi wallaahi moo gën mu ngi ñuy dégg gaay nañ ñu dégg nañ dugal ci kaas. yéen ñaar billaahi wallaahi loolu laa na moo ñu tëj ma billaahi wallaahi laa bëgg. barki alxuraan dañoo war a wane suñ bopp temps bi xaaruñu. billaahi wallaahi day jeex léegi léegi Malick ñaar ba muy bëreeg ñoom Ama Baldé ñun ñoo ñun ñoo doon entraîné ak ñoom Ama Baldé ñoo ko doon may contact. kon li may ndam Ama Baldé ci ñun la jóge hmm. kon ñun li koy daan jaaxaluñu. bu dul Malick ñoom Modou Anta ngi fi. man bu Cees. loo yëgee Modou Anta. waaw damaa bëgg a wane sama bopp rek. waaw moo tax nag instant bi nekkatuma sax ci yooyu noonu samay adversaire laay lim ñu ñëw ñu bëre. waaw ak koo ma yéene yow. man waaw. <laughs> rek. Boucar sama boy la moom maa moom a bokk jaxaaw quoi <laughs> amul problème waaw. waaw non bëri na. billaay wallaay. bëgg nga. bu baax. booy kay euh, nu mu tuddati Diène Kairé. Diène Kairé ñooñu samay morom lañ mais xam nga laa ji léegi. ku ma am ndey be ku ma ah, barki alxuraan du dugal stade du ma dul dugal. waaw moom laa la wax c'est normal mais samay adversaire lañ. ñooñ samay adversaire la taay lañ dàq ñu ma bëri ëpp ñu ma doole ëpp ñu ma fit. amul lenn lu luñ may ëppale ci làmb lenn rek a fi nekk kay làmb ji da ngay am ku ma am nday ak ku amul nday ñi dañ fiy nekk am ñu leen féete fenn fi di leen jàppale ñi nekk fi di faayat seen live ngir yegg man dama naan dégg dibi combat rëg yoo xamante ne danaan saraxu naan adversaire bi mën naa wàññi ci kasem yokkal ko ngir bëgg bëre est-ce que moment bi ko dund loolu noonu ndax tolloon na foofu ndax nit ñi dañuy moytonte nii la ñuy def man mii tolloon naa foofu man saison buy tijji mën naa bokk ci mbër yi ñuy njëkk a proposé combat mais mën naa mujjee bëre ndax moytonte bi te loolu moo mën a ñax tey ji làmb ji ñu grand yi fi nekk seen tour la fi des rek mais ñoom ñëpp màgget nañ ñun ñooy téewi ji làmb ji kon nañu boole ñu bëri naka laa fi dekkiwaat ñu ñu ñu investir ci jeunes yi mm-hmm. wallaahi azim grand frère yi ñuy jël di leen fay million mënatuñoo neexal esat mënatuñoo def lu yëngal mbër yi bëreetuñ dañuy ñëw rek la seen làmb ay fàqatante rëppante yooyu mu jeex duñ sax dóorante ñun nag dañuy rayante nañu nañu tëgal ñu bëre Gaston suñu papa la millions yi muy financé ci grand yi na ko financé ci xale yi làmb dekkiwaat yow tey ji am na amateur yoo xam ne làmb yu mag yi gis ngeen làmb yu mag yi fi passé doo gis sax kenn ndax xam nañ ni la am mooy loolu noonu nañ boole xale yi ñun su jeunes yi ñu bëre suñu biir. Mm-hmm. loolu mooy yoon. am na solo maa lay jaajëfal bu baax. di la dolli jaajëfal bu wér a wér a wér a mm-hmm. di kontaan ci yow. Mm-hmm. di rafetlu lii quoi vraiment. ndax fekk nga ma foo xam ne tey boo gisee ni ma waxee sax nga xam ne tey amaana dama am mbégte ndax damaa gis samay mboq. gis sumay xarit gis sumay am di jàmm. ndax lii rek famille tey ji man wóor na ma ni su ma amee combat ñi nga fi gis ñëpp dañuy jug ñii tamit ku ci am combat fii ñëppay jug te àdduna mboq bu njëkk mooy sa dëkkandoo mhm. te dëkkandoo jàmm ca gën fii ñi nga fi gis ñëpp lu ñaaw mënatul dox suñu diggante mhm. te musul suñu diggante kon ñun lii bu amee rek dañ ciy am mbégte ndax man suñu àndee dama naan kii mooy suñu mag Kara Dollé mhm. barke daan dafa ma daan fekk géej may entraîné mu ñëw ne ma zee lan ngay naan looy jël maa wax yow ma ne ko jëluma dara mu ne ma ah dama lay xamal lenn daan nga ma dégg ma naan wuy lu may wax waa koñ ba hmm. xama lan moom ko tegoon hmm. potu kepp yi ngay gis suma gaal ñu fay kepp yëpp ay ay doom yi gars yi doon naan la mu ne ma bul jël loolu mu ne ko hmm. grand man entraînement laay def no femme no film y a pas de maladie pire et te conseil am yooyu mu ma conseillé xam naa ne ba ma koy wax fàtte na ko sax mais dafa des ci man ba na xam nga kon xam na li may wax dëgg la te li ma lay wax na loolu œuvre xam na ni moom dund na ci loo xamante ne ñaan ñeenewuñu ko ñu ñu dund ko bu doon ko soxor la danaan ah nañ ko bàyyi booy bi wayet yi hmm. mais woo na ma ba ma ñëw mu wax ma wax joo xamante ne des na sama xel ba lépp lu may defati dama koy bàyyi xel comprendre nga kon ñun famille lañ nga tey ñëw fi fekk fi ay ñoom Seydou Pulum Papa Dia Aline Seydou Boy Seydou Pulum gars yi ñoom papa armée lacrymogène a ngi nekk mbaaye nga ñëw gis mbër yi mbër yi laay lim de nga ñëw gis ñoom bulldozer gars yi mbër yi fii ñëpp ñëw ñoom gas gars yëpp nekk fi nga ñëwaat fekk fi samay xarit yi nga xamante ne ñii samay gaan yu ma foondool la ñii samay grand frère la ñii samay lépp lañ xoolal ñoom Baye Sidi borom maketu caare yi barki yàlla démb dañuy wàcc affaire bi dafa maa woo ñu jox ma bu bëri ni ma mbër pareel loolu laa leen defal bañ defal ma loolu tey mbooj ñëw wàccee otom mburu teraanga bu bëri mënu ma la wax nu mu toll mm-hmm. ñoom Tafa Soumaré Seri Sona ñoom Papa xam nga ay ñoom gars yi ñoom mbaaya dafa bëri xoolal sama booy bee Kayaar Kawlax la dëkk mais Kayaar la jóge barki Seydina Mohamed dégg ndog yi rek ñëw fii Baye Niass. moom it day nekk si seen gaal sax seen capitaine ak ku ne la may jox g ñii dañ laa bëgg affaire yooyu ñooñu amuñu seen fay quoi. Mm-hmm. nga ñëwaat sama mboq Baye Fall yi ñoom Pambeen Bamba booy yi chaque jour maa ngi ñoom ay tegandoo ñoom foofu café ga mm-hmm. Cheikh Fall moom chaque jour des fois damay kaaw sax xaw a jug na ko Cheikh Fall mu ne kafe gi teg naa ko wala ndox mi tàngal naa ko nag kafe gi ñëw. Mm-hmm. mooy loolu noonu jaal moom sama sama deret la. mënuma sax wax ci moom ndax dafa dem ba daa mel ni am kersa bu dox suñu diggante boo xamante ne nit ki boo ko bëggee bëgg boobu da dem ba sax yow doo mën a wax ak moom. Mm-hmm. te looloo ma dal ndax dañoo foondoo ànd dund lu metti barki Seydina Mohamed daan ànd làmb muy metti mm-hmm. billaahi wallaahi wa mu koy mu koy tenir kon ñoom awma seen fay ñoom Cheikh Tidiane mm-hmm. ñoom Deef Daouda Kaana gaa yëpp ñoom Kéba xam nga béy di tey damaa koor gi dafa teeru rek mu ne ma boys koor gi da def ay ndogu de ma ne ko waaw mu ne ma a ngi la am lu mu lay ma ñëw mu ñaw lii ba mu naaj jox ma ko kon aw ma fayam billaahi wallaahi ñoom keebaa sama gars yi tëyër ñoom daaru cun ma fi ab yëpp ñoom pam njaago ay ñoom jiili nu mu tudd ay ñoom jiili gars yi dimbali ma fii coro mm. ñoom Pape Dione ñoom yoro Ahmed Diop yaa ngi may dégg ñoom Saliou mafia bi yëpp xam nga lii lii tey yow ba nga ñëwee gis nga fekk nga fi ñëpp soxna yi ñëwaat ak sama benn copain Ahmed Fall Zungule mhm. moom it aw ma fayam comprendre nga Zungule billaahi wallaahi aw ma fayam li tax aw ma nag mooy mhm. nit la li tax muy nit nit ki da ngay ànd ak moom te yàlla rek tax hmm. te moom suma nit la lu ma xewle rek teew na bàyyi lépp lu mu jàppoon comprendre nga te àdduna loolu rek la hmm. Pape Fall borom boiserie yaay na fi moom it maa ngi koy bége bu baax a baax a baax ndax ñu lii lañ am xewle hmm. gars yi ñëw ñu wax ci ñoom ndax chaque jour daf ñuy dañuy defal teranga yoo xam ne du làmb du dara mais seqalu naaj rek a tax ñu koy def kon ñëpp maa ngi leen di bégee di baaluwaat ñëpp àq mécanicien dóor yi waa caara yi ama seen maa leen di bégee dafa bari ak sama benn benn xarit bi nekk Amérique Alsaan moom it sama waay la daf may jàppale sama grand frère Boston tamit mm. maa ngi koy bëggee Modou kan xam nga mafia Italie bi ñoom ñoom Elu Uldu ñoom Modou Anta gars yi nekk Europe bi yëpp tamit di ma bëggee maa ngi leen di jox seen waaye ñoom bambaak gaa yëpp aw ma seen fay kontaane naa leen daal sama mafia bi yëpp ku ma limul rek xëy na damaa juum wala sama xel fattu hmm. mais gaa yëpp bëgg naa leen ci suma biir xol hmm. barki arxuraanul karim te sama xol bi bu fekkee yéene naa ci kenn lu bon yàlla naa ci jiitu ndax xama at namul solo billaahi wallaahi wa taala di xamalaat gaa yi ñun hmm. làmb moo ñu moo ñu boole tey adversaire bi sax bu ñu waree bëree dañuy bëree mais bu jeexee jeex na barki arxuraanul karim kon yàlla na suñu borom dolli ñu sutura suñu ànd bi ñu nit yàlla lafal ñu cat ba seytaane bu mu ci am wàll ndax ànd fulla la ak bëggante ak yéenante te billaahi wallaay koo ci ubbi xolam tey jii boo soñoon sa moroom mooy am ndam te loolu rek dafa rëy fii kenn gënu fi kenn sëy sàng mu ngi wax mais man tey jii li ma jàpp man mafia bi barki arxuraanul karim maa ci gën a nekk xale te du ma nangu mukk kenn di ma jiital ndax li tax du ma nangu kenn di ma jiital mooy jiituwuma ci kenn ñii ñëpp ci samay morom lañ ñii samay grand frère lañ kon tey jii damay topp seen ginnaaw ñoom ñuy doxal lu suñ borom def ñu xam ne loolu la mais daal ñu ngi ñaanal Papa Dia ndam dafa nekk ci combat ndam Boy Seye numéro 2 ndam Armé ndam Pulum ndam gaa yi am fii combat ndóoy gaa yëpp nañ yàlla na leen suñ borom defal ndam billaahi wallaahi wa ndax yow xam nga ñun bu ñu bu ñàkkee rek day feeñ te warul kon yàlla nañ suñu borom suturaal defal ñu ndam di wax ni kontaan naa ci gaa yëpp ñëpp àq tey baal ñëpp àq quoi vraiment di <laughs> di bëggee ñëpp ñu wax jërëjëf mbokk yi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf